nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant maymuunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant maymuunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan jàpp kii di soxna may bu dërëdër ngir moonu may xéewal yu doy may njariñ ci laylatul xadar nee na amul moom benn bis nee na amul moom benn bis nee li mu am mooy benn bis te moo di laylatul xadar nan xam ni soxna may xadim faaxat li kulli sil xadim li annaha bintul xadim tey waaye laylatul xadar su ngeen ma dégloo ma xamal leen nu ngeen xamul xam koo nu war moo amal lin am ci laylatul xadar soo ko jubee mu daadi ree te soo mu daadi lum la waxit day daadi ree yayoona laylatul xadar yaatu ba mel ni mbambulaan tabe ba mel ak sayaan waa la rommi na sayaan yaatal na laylatul xadar du tuddi nit ki du la digil lu mu narul te du wax mu xamul te laylatul xadar moo woote laylatul xadar ci amatam xasin bu wér loolaay juróom fukk wér ci ati laylatul xadar ganaar la togg ba mu ñor def ko ci ndab yóbbu ko kër Cheikh Fallou Mbàkke gën di mbër ci guddi laylatul xadar bi soxna may agsee ci moom taxaw ca buntu Badiri Cheikh Fallu moom la ngeneel seen xadar Cheikh Fallu daal di koy dagul ne léppul alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi wa sallam noo ngi tàmbale suñuy kàddu ci sant suñ borom mi ñu xéewale ñi fekke waat weeru teddu wi di ñaan fekke ko ay déwén yu bari te suñ boroom nangu jaamu yàlla yëpp barke Serigne Touba di yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar di ko jële ci suñu waajuru tedd wi eh, Cheikh Mouhamadul Mahfous yàlla na ko fi yàlla yàggal eh, di ko teg seen loxo di ko teg ci loxo yi sëñ Moustapha Sarr eh, ak sëñ Abdou Lahad mii nga xamee ne moo ko fi teewal sëñ bi mi leen di nuyu bu baax eh, di leen sant bu baax ci taxawaay bi ni ngeen ko waxee rek di eh, taxawaay bi dafa yàgg ndax ci sëriñ Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba la woon te bu ma juumut Cheikh moo ko boole woon ak Soxna May muy muy muy muy muy taxawu bis bi ba am bi ko taxaw ci dunduk soxna si ba am mu soxna si soxna si jóge fi teewut mu koy wóyal ci njaboot gi ba mu fi jógee itam mu doon ngeen làqoon na mu soxna si làqoon na ngërëmul njaboot gi waaye teewut ñi ko fi wuuti itam di wóyal liggéey boobu kon loolu day wane ne eh, liggéey bi dëgg la waaw te liggéey bi ni ko soxna may daan waxe rek Serigne Touba daf koo nangu kon euh, sëñ bi mi ngi leen di mi ngi mi ngi nuyu sëñ Moustapha bu baax di di di ñaanal ñi nga xamee ne ñoom la fi wuutu di sëñ Sang ak sëñ Saaliwu ak seen waajur wu teddoo sëriñ Bassirou Sarr suñ borom yokk leen yërmaane ak njéggal ak ngërëmul sëriñ Touba. xam naa ne làq nañ ko sax ah mm, bis bii nag moom ku ne xam na ne ci weeru koor lan nekk weeru koor suñ borom dafa wax ci alxuraan eh, eh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne kullu xasanatin bi ashri amsaaliha ila sabamiati daafin illa sawm fa innahu liiwaan ajzi bihi nee na jëf ju baax ju jullit def suñ borom daf koy ful ba mu mat fukk waaye ma mën na ko ful itam ba mat juróom-ñaar téeméer ni nga xamee ne noonu la koy defee ci ku joxe ku joxe suñ borom dërëm boo joxe juróom-ñaar téeméer la koy fulal waaye ba mu des koor nag nee na koor moom maa ko moom maa koy fayal sama bopp loolu la suñ borom wax kon lépp lu ci waaye du def bu la suñ borom fay mën nañu wax ne du amug yow mu kaay ndax ku nekk moom na nga tabee rek noonu ngay maye te suñ moom kuy tabe rek ci moom nga ko gisee sëriñ Tuubaa itam ñi nga xamee ne danoo dëkk di ko di leen di ko liggéeyal def leen a ñaanal waxti xawaa ijal ladina daamoo fi xidmati wa hablahum maaraamu nee na yàlla na nga faj aajo ñi nga xamee ne danoo dëkk ci di ma liggéeyal te may leen lépp loo xamee dañ koy sàkk kon loolu yàlla na leen ci sëriñ Tuubaa dugal barke sëriñ ah sëñ bi moom xolam sedd na xolam sedd na guy ndax eh, ni ma ko waxee rek moom bu ngeen yemoon ci ngërëmul soxna si yéen ñëpp dana mën ngeen cee dugg ci biir waaye teewul nag ndonalu da ngeen ko sàmm di ko wéyal kon loolu yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla na fi yàlla yàggal sëñ Moustapha ak njaboot gi yépp rek ba lépp loo xamee ne moo nekkoon yéene eh, waajur mu tedd waag magam yu tedd ya mu àggale ko waaw lii ngeen di def nii yàlla na yàlla yokk kàttan gi ba fu ngeen ko bëgg àggale rek ngeen àggale ko fa waaw ndax liggéey sëñ Tuubaa moom liggéey sa bopp la waaw sëñ Tuubaa moom ñi mu wut bor daa amuk pay daa amuk pay waaw sëñ bi daal kontaan sant na bu baax waaw sant na bu baax xañ na li eh, eh, li ñu waroon wax lépp duñ ko duñ ko mën a wax waaye sëñ bi daal sant na bu baax mi ngi leen di ñaanal baax taxawaay bi yàgg lool rek te ngeen daje ci ngërëmu sëriñ Touba suñ borom yokk wërsëg yi te musal leen te nangu liggéey bi yëpp barke sëriñ Touba jërë ngeen jëf. pas pas sëñ Bousso Sarr jàmm si am pas pas bu mu amoon boo xam ne bi dama ko bëgg wax mbooloo mi dëkk ko pas pas bu sëñ Bousso Sarr amoon te pas pas dama ko fàtte Laylatul Qadr bañ ko tàmbalee di ko dox ba yàgg soxna si làqu damaa dikk ne ko sëñ bi xanaa dañuy bàyyi Laylatul Qadr yi ganaar yi mu ne ma góor saar yaa dëgg-dëgg yaa doof ma ne ko ah waa xanaa sëñ Tuubaa taxul mu koy def sëñ Tuubaa du fi jóg di li ma daata dama koy yokk an moom la ko yokk waaw jërëjëf loola jóg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa daayiratu tasawudu subaan ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar leen jox seen wàccuwaay bu baax ci taxawaay bii nga xam ne defoon ngeen ko daaw eh, fekkewaat ko déwén fekkewaat ko ren yal na yàlla mayal leen ngeen bokk waat ko na gën déwén jëmm ji ngeen fi fekk muy sëriñ Modou Mahfous Mbacké moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacké moom soxna moo ne Bétul Xaddim mi nga xam ne moo fi dajale tey e, mboolem njabootu seriñ Touba gi fi ñëw yëpp ak taalibe yi ngir waajal bis bi nga xam ne moo nekk suñu kanam dayre bi di dayre tasawdu subaan tubaa asalem dëkk ak soxna may mun a bintul xadim di ay tuut tànk yoo xam ne bu ñu taxawee ba nëgë ni seen yitte jëpp bañ déggee turu soxna may rek lañ bëgg soxna may sopp soxna may di ko wooteel ab dayra di ko rajale ba liggéey bi toll nii ñëw di ko andi si xam naa dañuy jox sëñ Mahfous Guèye bu ko defee moom it mooy yëkkati kaddu ci turu dayra bi bu ko defee bu nappee kaddu yi jóge sëriñ bi ñu doog leen ko jox. bisimilah min seytaan rajim ginnaaw bi ginnaaw bi ñu yàlla julli sangub sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dellu sant sëriñ Touba dellu sant sëriñ Touba di siyaarawaat mbooloo mi yëpp leen baalu àq tey di leen baalu àq di tubaat bu wér a wér si yi. wax dëgg yàlla amaana lot nañ si lool waaye ndigal moom dañuy jëfee rek waaw ñu ngi koy tubaat bu baax a baax a baax waaw di siyaare sëñ bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér ba lim liggéey maam ji baax ja mu defee ko lu kawe njortam ànd ko ñun taal bi yëpp di siyaare waat waa daayira yëpp dëgg yàlla defoon nañ ko daaw ba ren fekkaa ñu fi ñu koy sante suñu borom bu baax a baax a baax mu dolli ñu dimbali wax dëgg yàlla ñu ko tàmbalee ba léegi sëñ bi naa naa leen si fàggul faagu teef ba léegi dañ koy gis barke Sëñ Tuuba dañ koy gis dëgg yàlla booba léegi daa ginaaw ginnaaw am si lañ si gis dëgg yàlla dañ ko koy sante bu baax a baax a baax di wax ne lim ñu fàgguloon Mbàkke ñu ngi koy gis bu baaxa baax waaw ah, dañuy ñaan doole rek dëgg yàlla ay tuut tànk lañ tey liggéey siñ Tuuba bi ñor nañu trop waaw dëgg boo xoolee fii fi bari seen at yi waaye liggéey bi leen a ñor duñu mën def bu àjjuma jotee dañ koy bàyyi dëgg seen i tey ñëw teewe ko kon it du suñu njàmbaar ndimbal suñu borom la te xam na ni soxna mooy moytu Mbàkke mu baax mi muñ ci réelé loolu ak cant la si ñun te it ndimbal la si ñun te li Cheikh Ibra waxoon rek jëf jël waaye jëf yaa ko moom kon nag yoon wu lañ bëgg a taxawee seen bëgg a jàppante liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu nekk suñ bunt si Sëriñ Tuubaa ñu koy teewee ay at di ko def yokku tey liñ koy gis bu baax a baax a baax Mbàkke man li ñu sàkku mooy nga doole waat ñu ñaan rek doole ñu ñaan bu baax a sandaat bu baax ñu koy def ni ñu ko daan defee nu ko raw di ñu koy sant bu baax di siyaare suñu yaay ji yaataa ko mit wax dëgg yàlla da ngay sàkku nga ñaanal ñu ko bu baax a baax a baax dëgg yàlla mag la suñu moroom waajur la waaye fu mu mën di teew dañ fay teew yitte ju am mu taxaw si kon it mbàkke ñu ngi lay sàkku nga defal ñu ko nga beral ñu ko ak ñaan ak cant wax dëgg yàlla moom ay ndaw lañ daanaka ñaan rek lañ faral di soxla nii ñaan rek lañ faral di soxla ba dëgg-dëgg suñu borom làq ñu fo yàq eggul waaw ñu ñu nekk ñu du nekk dara di ko liggéeyal moom rek leen fas yéeneel ñu koy saakum Mbàkke nga ñaanal ñu ko si barke borom Touba dëgg yàlla kàddu yi ñu ngi koy tuwaat bu baax a baax loot nañ ci lool lool lool koy tuwaat bu baax wa salaam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu. nuyoo boo xam ne mi ngi tàmb mi ngi bàyyi ko ci sëriñ bi di Cheikh Mamadou Mahfous jëm si ci mbooloo mi ci ñi ko jiite ci wàllu góor ñi ak jigéen ñi ñi ko jiite ci wàllu mag ñi ak ndaw ñi sëriñ bi ne yéen ñëpp mi ngi leen di sant te di leen gërëm ci liggéey bi ngeen xam ne am ngeen pëstéefu dëkk ci gox bi muy Touba Asalem boole seen bopp boole seeni addiya di ñëw di ko jébbal si ne lool mi ngi leen ci sant bu baax a baax ndax li ci ëpp solo rek ci njëlbeen gi mooy booloo gi ndax booloo gi ci la mbooloo mi mën a daje ba lu ñuy nas ñu nas ko lu ñuy dajale ñu dajale ko di ko yët sëriñ bi kon ne mi ngi leen di sant ci loolu te di leen di leen di leen leen soññiwaat ngeen gën koo yaatal mbooloo mi nee na mi ngi leen ñaanalit ngeen yàgg koo indi yàgg ko fa fekk te ndimbal yeeg tawféex yëpp gën a dolliku ndax li ngeen def positif la ndax ginnaaw ci gox bi ngeen dëkk ñi nga xam ne ñoo ci féet mag ci góor ñi xañ na taxu leen di mag lool sax ak ñi nga xam ne ñoo féet ak mag ci jigéen ñi taxu leen di mag lool waaye seen pëstéef ak seenu bëgg lu baax tax ngeen booloo wut maanaam ndaje bu ngeen daje ngir laytu xadar loolu sëñ bi ne mi ngi leen ci sant leen soññuwaat bu baax a baax ndax barab bi moom kenn gën leen koo jege gan ñi buñ ñëwee yéen leen war a dal ndax yéen a fi dëkk da ngeen a war a génn seeni kër génn seeni ne ngir yaatal gan ñi loola bu ngeen ko defoon rek dana doy waaye bu ci boole nag ngeen boolewaat nag dajale seeni at yi di ko indeet loolu ak ndolleen la kon ne mi ngi leen ci santaar bu baax xam ne li mu leen di dolli mooy gan ñi fi ñëw seeni gan lañ yéen la ñuy fekk si ndax yéen dëkk ci gox bi lu ngeen leen gën a mën a yaatal ci dëkkukaay yeeg yëpp nañ leen ci yaatal bu baax a baax. boolewaat ko ci biir liggéey bi ndax loolu tawféex la ndax dëkk soxna may moom ci kërug Laylatul Qadr wax dëgg tawféex la kon nag loolu ne mu leen ciy soññiwaat bu baax a baax ah li leen ciy soññiwaat it ngeen doolee góorgóorlu góorgóorlu bu baax a baax ndax soxna may mii nga xam ni moo waral bis bii mu bisub Laylatul Qadr ñu di ko waajal ne ci waajtaay wi moom de ni mu ko daan waajale mooy su bis bu musaan jeex di alxamis ci guddi asamaan si ajjuma lay ajjuma jooje te lay tàmbalee waajal bisub déwén bi moom nan la ko daan defe ajjuma jooje tege ci ci ci ci alxamis ji ko doon waajale guddi ga jàll asamaan set di ajjuma ci lay tàmbalee moom waajtaayu bisub déwén bi kon yéen itam ngeen taxawee ko noonu te di ko waajale noonu ci lépp nag te xam ne soxna may moom itam ñun ñëpp xam nañ ni ab tànkam fi mu ko tegoon muy di taalibu Sëñ Tuubaa di jaamu bu yàlla bu nangoo jaamu yàlla di taalibu Sëñ Tuubaa bu nangu ak taalibe jël léppam jox ko sëriñ bi loola nu itam nu di ko ci royee ba ci yéen soxna yi ndax ku ci ku ci xool ab ab nataalam nataal moom lañuy wax foto ku ci xool jëmmi soxna saa boo ko xoolee boo dee boo soxna war ngaa góor gu war ndax nii mu mel ci waxtu wu ne li ko diine sant ci jëmmi boppam rek waxtu wu ne da cay feeñ kon loolu buñ ko dee yóbbaloo itam ci biir liggéey bi nañ koy yóbbaloo yóbbaluwaale muy góor ñi muy jigéen ñi ñuy góor góorgóorluwaat baaxit ci nangoo jaamu yàlla ndax loolu dafa bokk ci cosaanu liñ fi indi fii ci àdduna mooy sun borom dafa ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni ginnaaw lool mooy sun cosaanu ñëw fii àdduna nag te liñ bëgg loolu rek moo koy may te ñoom ñii jiitu ci loolu rek lañ newoon ndax lii lépp maanaam jaamu yàlla rek ko indi sàkk ngërëmul yàlla rek kon nag loola sëriñ bi ne mi ngi leen ci soññ ngeen góorgóorloon ci baax a baax a baax turu tur yi ñu leen tudde dégg nga muy tasawuru subaan tur woowu itam dafa mat a bàyyi xel ci waxtu ne ngeen di ko gëstu bu baax a baax mooy góor góorlu ci lépp loo xam ne rek ak njubla la ak lu ngeen war a xam lépp loo xam ne da ngeen ko war a xam ci li nga xam ne day yéwénal sunu mbir tey ak ëllëg muy sunu wàlluk diine ñu di ko gëstu lu ci waay xamul di ko xamlu ndax bari na loo xam ne kat bu la itteel ci sa adduna ji loo ci xamul dangay daal di gis léegi mu jar la nga téléphoné ku kula ci ëpp xam-xam <coughs> mu leeral la <coughs> ngir nga am yoon woo ca war a mën a jaar ngir la nga bëgg mën a yéwén waxuma laa nag mbirum àdduna te loolu mbirum àdduna rek la kon kenn ku ci ne na ngay gëstu sa digganteeg la lay say farata sa digganteek sa borom nga xam ko ndax loola dafa bokk ci biir liggéey bi kon loolu lañ noon rek sëriñ bi nee na mi ngi leen koy doole ngeen doole góorgóorlu waa gën a boolewaat seen bopp itam nag ba gën gën a boolewaat seen bopp ci liggéey bi ndax nii ngeen def sedd na xolom lool ndax dëkk ci gox bi di ay tuut tànk boole seen bopp boole seeni i addiya ngir di wane seenu xërte ci bis bii di Laylatul Qadr te ngeen bokk dëkk ci gox bi ndax ñi ci ëpp ay gan lañu waaye yéen fi ngeen dëkk kon loolu ne mi ngi leen ci soññ di leen ci santaat bu baax nañ yaatal gan ñi te lu ngeen man ci topp tool yi nañ ko def bu kenn xeeb dara waaw loolu la ne woon nañ leen ko jotal bu baax a baax lu ci des nag ci kàddu yi ci nun ñi la dese waaye moom bëgg na sax lu gën a jotale nii nu jotale kon ñi ngi leen di sant bu sëñ baa ngi leen di sant mbooloo mi ànd ak sëñ bi it ñi ngi leen di sant bu baax a baax yàlla nañ ko yàgg a teewee déwén yu bari te rafet fekkin te ñu nangul nu liggéey bi te defal na ci lu foofu suñ jor ci barkeb Seexuna Seexul Xaadim barkeb soxna si ter bi soxna may munatu bintu Xaadim Rasuul yan ko di amal ci guddi laylatul xadar ne ko dafa ko weesu romb xar nagal bëleem daan ko defar ci guddi laylatul xadar mooy rey nag rey bëleem bawul lu sax bawul lu meem jàngulu quraanul karim ci guddi laylatul xadar